lenn ci mbooloo mi ahlan wa sahlan ahlan bi ahli Nil ahlan ahlan bil ulama ahlan bi asri ahli sharif ahlan wa sahlan wa rahma bikum tafaddalu tafaddalu nurahib bi haulaa al afaadil ulamaa al azhar wal bi'sa al misriya alladina min da'bihim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 ci njëriñal adduna yi da mën a ñëwal tax mu ne tahuz jawaïs da am ay njëriñ yu bare bare bare leen lu nekk da nga am da nga ca mën a am njëriñ loo waaye sëriñ bi tontu ne fa qultu xasbi rabbi waaye bi mu tontu ñu dikk ci irkan bi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 ci kenn xemmee mu ma ci kenn ci yidul yàlla subhanahu wa taala bëgguma ko ci buur yi rëgaluma leen tamit ba tax <coughs> rëgaluma leen tamit ba tax may dem ci seen mboor walla ma di neexal wala may topp ci ñoom lastu arju yaakaaruma njëriñ wala axsha dararan ci ludul yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne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 gëm nañ yàlla yaakaar nañ yàlla ci wet waaye nag am na kuñ teg ci wet gi muy buur bi ak ñi mel ne moom moom na wóote na wóote naa ñu kon loolu mi ngi ay mabadi ay principe yoo xam ne wóote nañ ak ñu bari kiif téef yàlla rek laa ko jox inna waliya allahu alladi nazzala alkitaab wa yatawalla salihin kilif téef yàlla subhanahu wa taala rek laa ko jox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 xaw maam xaadi bi nga xam ne moom mooy iftaawoon kii bi masala bi moom fokk bëgg naa tabriir aala bépp xam ne lim wax teg na ko ci diine te it fokk bëgg na cee waxanteeg sëñ wut Cheikh Xadim radiyallahu taala te mënuñoo fexe ba gis ndax ñu ngi koy woo mën mënuñu ko mënuñu koo gis am na ci yoon woo man rus naa malaayika yi di ma gis may dox di jëm ci kër boobu rus naa malaayika yi yàlla yi di ma gis may dox di jëm ci kër boobu benn bis nag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 Sëñ Tuubaa kenn ku ne lay jox war ma ji nga am jox Lat Joor war ma ji ma jox Maam Xaadir war ji ma fekk na nee na ñu ngi suñu mët la nee na ñu ngi toog ci fi ñu leen laalal noonu seen toog seen seen gàngu naay sëriñ bi daal di toog ci suuf toog ci suuf ni cel ba mu yàgg mu ne ko damaa dégg ne ñëwoon nga fii ma ñëw di la nuyu si maam xaalis lay wax de dama dégg ne ñëw nga ci gox bi du ma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 ci maam xawba yi noonu day tegtale nan nan nan la bëggale woon sëñ Tuubaa kon mu àgg fa mu jëm ndax danoo doon na na tegtal ci yàlla waaye raw nga nu ci yàlla nangu gim nangu lu baax moom gis nga baaxu mag ña ak baaxu gaay nañ demee woon ñoom kuñ masaan gis ci yow mise loo ràññi loo leen rawe dañ koy daal di nangu fa saasa ah loolu doon nga nu tegtal ci yàlla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 tariqatan mabniyatan ala asaasi alilmi waldiini waltuqaa faqad allafa kutuban wa bayyana wa waddaha wa allama wa anshaa madaarisa wa maahida fa min aathaari haadihi almaahid mahadu alazhar wa mahadi duruus alislaamiya wa jaamia allati asasaha sheikhna alxalifa sheikh mahmad almuntaxa wa rafacaha wa badaat iddiraasatu fiha kulli haadihi aathaar ilmiya tuthbitu ala anna haadihi tariqa tariqatun ilmiya tariqatun mabniyatun ala alilmi